jàpp ñaar fukki fa ak juróom ci weeru mee gi ñu nekk foofu ca Nairobi euh, ca Kenya Sénégal nag bëgg ci amal taxawaay gu mucc ayib bu ñu sukkandikoo ci Abdoul Aziz Dieng moom mi ne nag moo leen tàggat ñu teewlu ko ak Younouss Sabalde joxante boobu ñu ngi koy def fële ca Kenya ca Nairobi li nga xamante ni moom lañ bëgg mooy vraiment taxawu Sénégal bokk ci joxante yi représenté d'abord suñu pays bi nga xamante ni vraiment bi ñu fonk loolu bëgg ko représenté ko dignement ñoo si fexe bokk ci ñeenti équipe yi nga xamante ni tey jii ñoom ñooy génn donc ci maanaam ci demi-finale loolu mooy li nga xamante ni moom mooy objectif yi nga xamante ni moom lañ kii loolu nag aussi pour ñu mën ko def bon déjà ñu ngi compté au moins organiser vraiment ay zone de test yoo xamante ni fii ci Ndakaaru ak fële ci maanaam ci région yi pour essayer au moins xool footballeurs yu suur yi mais mais nekk Sénégal bi yëpp ba ñu mën cee jël moins ñi nga xamante ni tey jii maanaam moom ñoom ñooy ñu desandi ba tey ak euh, équipe nationale bu Sénégal sur mieux ñoom ñu ne nag ñuy xam ne ne waxtu wi nag ci ay jafe-jafe la nekk ba tax na nag ñuy sàkk rek ci autorités yi ñu nag indil leen ab euh, njàppandal ngir nag ci boobu boobule compétition ñu mun cee am taxawaay gu mucc ayib ñu desandi ba tey ak Abdoul Aziz Dieng mi leen di tàggat. te loolu aussi dafa laaj ay moyens waxuma la ne au moins stage bi waxuma la ne aussi vraiment vraiment nañ nga xamante ni mooy le ministre toog ak moom ñu ak moom projet bi nga xamante ni tax a di ñaan aussi le président de la sport monsieur Santé Sène mu recevoir ñu ñu jàppale ñu ci lancer aussi un vraiment notre cher président monsieur Macky Sall moom tamit vraiment mu recevoir ñu ba nga xamante ni tey jii dañu may dem participer ci tournoi boobu vraiment te duñu am benn jafe-jafe yàlla baax yàlla bëri ci demi-finale retour Ligue des champions ah. bi gën a dox ci Séné bi gën a dox ci àdduna muy football Sénégal amu ci sax benn terrain bu bu gazon. ñu nit nag ñun nag yàlla ñu yàlla jàppale. discipline bu nekk am nañ ci fédération.